membre la étudiant la comme sama naataange marché bi di léegi li mu wax rek laay jéem a tënk ci worof ginnaaw bu mu leen jaajëfal parce que affaire métti woon na lool te leen fi daj lépp mais jërëjëf euh, benn concours comme ni mu ko waxee depuis ba tey bi jàppee ni ñu at nañu concours pour ñun def ñu xëy xëy yónni ay ay euh, stage pour ñu mais euh, ba léegi def na at ak genn wàll mais du lenn loo xam ne jàppale nañu ci du bruit déplacé du lenn loo xam ni am nan te ñun ba ñu dañoo jàpp ne bu ñu admee concours état bi gis nañu dafa soxla ay doomu aadama mu manqué woon lool ñu ñu bàyyi fa ba ñu amoon fan doon liggéeyee. ñun ay lan ñun ay euh, master ay master en ay pour nekk nekk université Saint-Louis. ñu dañoo jàngat euh, concours anesthésie euh, réanimation la les gens de ko on est nekk ñeent fukk euh, élèves depuis lors nag ni ngi ci liggéey am na ñoo xam sa doon dem ba mujj li ñu gis xamatuñ ko ñu bàyyi parce que metti na parce que yow tey nga nekkoon ci poste nekk sa poste nekk ci sant nekk fa major am ay prime am ay motivation loolu lépp nga bàyyi ko ngir jàppale sa réew dafa soxla te liggéey bi mu bi xam ni ko ñu ne bëriwul ñu bàyyi loolu lépp ñëw jàpp nañ lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt li tubaab loo xam ni waa daaroon ndàmpaay la ci weer wu jot nga mën koo jot dañuy jóge fii ñetti weer yoo def ci benn euh, région da ngay jóge dem ci beneen région du transport du transport du logement du accompagnement ci parce que cours c'est en ligne du ordinateur du du connexion du dara lepp ñun ñokay fay suñu bop ak sa salaire bi nga am seulement wara yo sa jabar ci war sa yor sa jabar yo sa jabor mo leena yob parce que trois mois nga déplacé mëno fa yob sa jabor ya yo sa jabor yor fa nga nek sa bop ñom ñom bañ leen bañ leen bañ leen lan lañ ba niveau dañ ñu ginnaaw prise en dañ ne lépp loo xam war na ci concours ñom ñokay war lo ñëwaat légui nak ñun suñu paré ak ñom ba performance bi dañ leen liggéeyal ñent at yo xamni ñom duñ dem fenn amuñu droit liggéeyal kenen ku dul ñom ñu d'accord loolu léegi nag ñoom lépp lu ñu waxoon gis ñu si dara. ñu ne li ñu bëgg mooy li ñu waxantewoon ak ñun nan ñu ko defal fay ñu ko xeexuñu xulóoñu li ñuy laaj ñoo ko moom parce que gis nañ fi ñoo xam ne tey ci dëkk bi ay 500 millions ay ñoo xam ne chaque weer 50 mille te daanaka li ñu def si santé ñun defuñu lu gën li ñu def kon ñun li ñuy laaj nii du dara weesuwul sunu pécule moy sunu ndàmpaay par wer suñu ba paré ñi nga toll ci ñu ngi si dernier euh, semestre war bind sunu mémoire te ku wax mémoire di nga wax di nga wër a bëgg ngaa bind war photocopie photocopier war a tapé war a tiré loolu lépp nga war ci am tay déplacement et recherche la laaj lool lepp mënu ben ben ben sagaw salaire mënu ko nga yor njabot yor sa yor yor bopp léegi wax nan depuis daaw ñu ngi wax ku ñu war a gis gis nan ko ñëw neen ministère def na rencontre ñoom pécule la pécule ak frais de mémoire ñëw neen ministère depuis daaw ba ñun bi ñu at ba suñu deuxième année dañu woon ne c'est acquis loolu ñu waxoon loolu kenn waxatu ko janvier la ñu commencé pour ngeen démarrer jot waaye ba tey gis ñu ko léegi nag léegi nag ñun boobu léegi ñu ngi xaar parce que li olof di wax rek mag la la bëy am ba soxla si jëf bu ca continuer mën naa dem ba màgget waaye nag dafa danoo sës danoo sës li laaj nañ ñuko jox buñ ko joxon nak fi ak wër fin du mois juillet su lo gisul den delu ci lan nekkoon tok di len deglu ba keroog ba ñu nuy ñu nuy jox li nga mo ne moom la ñoom suñ mënul toog ndax ñun ñoy soxla ñu ñoy soxla buñ démé bok affectation yu gën ñu wa dem kenn du rejoindre sa poste juróom sa xaalis c'est ça merci merci je suis le porte-parole de ce à savoir le à l'Université de Voilà, nous sommes là aujourd'hui, ce 19 juin, pour faire un point de presse par rapport à toutes ces situations que nous sommes en train de rencontrer dans notre formation. Le 16 août 2021, le ministère de la Santé, en collaboration avec deux ONG, à savoir Ismea et Enabel, avait organisé un concours pour le recrutement de 40 éléments infirmiers et, sage sages-femmes pour une formation de deux ans pour un master en anesthésie et réanimation à l'université Gaston Berger de saint Nous qui avons eu le mérite de réussir à ce concours sommes mis en position de stage et qui dit position de stage dit vraiment des faveurs en fonction de certains, de certains avantages qu'on avait au niveau de nos lieux de travail. Et parmi ceux-ci, on peut citer l'absence de motivation au niveau hospitalier et il y a aussi plus de supplémentaires. J'en passe. Depuis le début de la formation, le ministère, qui est notre ministère de tutelle, ne nous a donné aucune mesure d'accompagnement. Il n'y a pas de bourse de formation pour un concours, un concours d'État en plus. Il n'y a pas de début de formation, il n'y a pas de frais de connexion car les cours sont faits en ligne exclusivement. Il n'y a pas de frais de transport pour les multiples déplacements dans les zones les plus reculées de ce pays. Étant donné qu'on fait des stages de trois mois, chaque fréquence de trois mois, et après chaque trois mois, on est ventilé dans une, autre zone pour effectuer aussi un autre stage de trois mois. Il n'y a pas de frais de logement. Le logement, les frais de logement sont payés à notre ce qui n'est pas du tout normal. Et si on arrive sur ce terrain, si malheureusement l'hôpital ne peut pas nous loger, on est obligé de se démerder pour trouver un logement à il n'y a pas de frais de nourriture. On est obligé de tirer de notre poche, malgré nos salaires dérisoires, pour trouver de quoi susciter. Pour citer que ça, il n'y a pas aussi de frais de mémoire. J'en reviendrai plus tard. Avec des salaires d'infirmiers et de sages-femmes dérisoires, on arrive à peine à nous en sortir. Vraiment, car les salaires sont partagés entre les familles et aussi cette formation qui nous prend beaucoup de temps et beaucoup de frais certains d'entre nous ont dû quitter vraiment en cours de formation. S'il vous plaît, arrêtez. Que nous rencontrons durant la formation. Et rien n'a été fait depuis lors.